Macky liste les solutions quotidien moo ko wax de ah maanaam solution bu jàmm di amee ci àdduna xam nga jàmm jàmm bu njëkk mooy Macky Sall génnal suñu élection nga dem sa yoon jàmm foofu njëkk commencé ndax boo wàccee ci campagne amoo droit wàcc ci campagne bi de dama lay wax rek xam nga ma la doon wax fii bul nekk candidat boo nekkee candidat di nga ñam nga dégg ma nekkoo candidat déggaat ma bul wàcc campagne bi de instant bi gars yi di campagne xam nga normalement si nga war a nekk di ranger say bagage te say bagage daa bëri commencé di defar say say kees te dugal say bagage ndànk-ndànk xam nga tuxu daa métti pap mos nga tuxu mos nga tuxu mais pap yow sax wax yow wax nga dëgg yow ñam nga fan yi si tuxu mais tuxu ak a métti est-ce xam nga tubaab bi nee na ah tuxu équivalent kër gu lakk la parce que xam nga lu tax sa bagage yi yàqu moo bëri munoo munoo kenn mënu laa assuré ni bagage yëpp di nga ko jëlee kër tel yóbbu ko kër tel moo tax sax gis nga tubaab en général buy tuxu ñi ko mën Pape est xam nga nii dañuy génne bagage rek maye wala ñu jaay mais bagage yële benn du leen topp si kër gu bees gi dañ koy meubler moom pare ñu dem dëkk ah moo tax ngay toog ba si yàgg rek gis ay fauteuils yu ñu sànni noonu gaa yi ñëwaat dugal ko si ay conteneur ñëw fii di ko jaay naan venant Pape du venant de mbalitu tubaab la looloy dëgg waaw moom la ñuy andil fii de si conteneur andil ñu wàññil ñu kaas kaas waaw waaw pap kaas nan la mu ne nekk venant pap <laughs> mais pap kaas nan la mu nekk venant pap tubaab bi naan kaas def si affaire am yooyu ba mu ba mu sàppi ko mu jël kaas bi sànni gars yi jël ko raxas andil ñu ko naan ñu venant bañ leen bàyyi kaasu venant yi ngeen di jënd nii ak yenn affaire yi ngeen koy jënd di ko dugal seen kër yi bañ leen ko bàyyi lu ngeen gis dinañ toog a yàgg rek ñun ñu commencé léegi di feebar yooyu mooy indi feebar yi suñu kër yi te ñun xamuñu ko kaas yi dina poussière kaas yi dina tilim kaas yi dina yàgg fi ñu ko dugaloon ñu ñëw toog ñëw raxas ak omo ne léegi baax na pap dañ xool li ñuy def waay acca acca acca pap pap pap chronique bi dafa nar a rëy di ah ah Macky fait le procès des putschistes Macky nee na Afrique dafa bëri putsch dafa bëri coup d'état day mais lan mooy indi coup d'état su dee benn caste politicien ñoo nekk si kaw benn réew di fa plané respecté wuñ benn loi respecté wuñu benn droit respecté wuñu benn devoir di def leen neex militaires yi jël réew mi ñoom it def lu leen neex ah Pape mën ngaa gis dëkk buy dox normalement am démocratie am lépp am sécurité état taxaw nu mu war a taxawee muy am coup d'état ah kan moo xalaat coup d'état États-Unis wala France kan moo ko xalaat mais ñun suñu démocratie yii nga xam ni démocratie à la carte la mais dafa ànd ak ay putsch ah loolu la yow Macky Sall da waroon da nga waroon ne candidat nga <laughs> waxuma la putsch rek yow da nga waroon ndax candidat nga non boo newoon candidat nga soulèvement populaire mooy am boo xam kenn du ko téye yow ku yàlla yow ku yow yàlla moo la yow Macky Sall yàlla ku la bëgg la xaw ma nag xam nga wala xamoo ko mais yàlla ku la bëgg la aca ñu dem